Anggur en gros rek la def moo tax foog naa ne euh, saaga yàkkamte xeex kii door a man kii saaga waaye kii saaga di door man ñëpp taxaw nag ne am naa millions et quelques yomb na mais man sax détail ci xam nga ci ngay nekk koo xam ne doo wax ko ci dëgg man ngay nax waa koñ ba waaye boo demee ba am fa ñetti at su su wax jógee danaan xanaa du diw ñu ne war mu ne ah wal mu jàll bul dóor sa doom waa bennoo tas yaakaar nag foofu lan toll ñoom ñi seen bopp ñuy wax ñoom ci seen bopp gëmuñu li ñuy wax xam nga sept millions mënuñoo nekk ci mënuñoo inscrire ci liste yi ñu génn ci élection législative mënuñoo am majorité te yaakaar naa ne boo boolee voix yi ñu am ci élection yi ñu génn un million la wala yu manqué wala yoo xam ne ay weccat lay topp te booba Benno Bokk Yaakaar mi ngi mi ngi tane parce que am na ñu ci génn ñoo xam ne ay kàngam lay burub dara am na lu mu yor muy mm. Ngouille am na lu mu ndax mooy gañe dëkkam loo ko bañ bañ Mame Boye ci ay milliards la toog di ko séddale am na ñu ko gëm ñëpp bëgg a nàmp ca weenu soowam yor gëm nañu lu mu gàtt gàtt am na lu topp ci ginnaawam am na lu mu doon am na taxawaay bi mu amoon aussi muy néew ak a am na ñu ko bëgg buñ jonn noonu te ñi déclaré seen génn maanaam ñi génn ñi bàyyee ca génn ñoo ëpp ñetti junni yoon ay ñasar ñu ne rek ñu ngi ci woon gëm affaire bi te booba un million yi topp lañ am ba pare président bi bëggoon yor ay milliards di ko sàcc di ko tasaare nit ñi ba pare mu am un million de vote yow nooy demee ba bàyyi xëcc sa surga mu bëgg a continuer ci toroxal gi nga doon toroxal nit ñi ba ñuy def ci gaal bi di faat nga taxaw ne xew jàkkaarloo ñoom naan ay am naa trois millions de pare ñoo mën a kàcc <laughs> barki sëñ Bamba waxuñ la dara amuñu trente mille sax amuñu xam nga siifur boo xam ne ci gémmañ lay génne yomb na xam nga mën ngaa toog lim lu la neex tey ka war a lim crédible ci lim koo xam ne tey parrainage président Ousmane Sonko li may wax toujours ne day mel ni maanaam màngo ku ñor ñu gësam yaay bind ba taw ñun dañoo yendoo bind ci marché bi guddi gi ñu taañaañal ñi ñuy parrainel ci marché bi ñoo ñoo ñuy indiwaat ci seen kër yi guddi nit da ci yónnee carte sax mel ni daf laa jox ab seg segu segu banque foo toll baa dugg na mujj mu am na ñoo xam ne dañ ne ma sëñ bi faaw nga foto yëf yi ba mu dugg ci biir xam nga Touba jafe-jafe bi ñu am sax mooy ñu fi nekk xobe nañ ci seen carte d'identité xobe koo xam dañ naan la duñ ko jox ku ñu xamul. moo man gis naa ñoo xam sax dañ lay pare ne ba pare foto la buñ la xamul wala xamuñ la dëgg ci gain bi wala ci ëttu Sonko dañ lay pare ne ba pare foto la. àllëgët si biir buñ demee ba xam ne bi duggul ci kii Sonko buñ dajee ak yow mën nañ laa saa pare. Touba seen carte d'identité ak yéene bi ñu am ci procès bi sëñ rek lañ koy seere waaye nag moo leen war ndax yoonu murit dafa takkoo ak mbañ yoon wi ci tarixa yi mujj a déclenché la bokk mais ñi ci dugg ñëpp parce que dafa am fu mu laale tuuti bu baax sax ak bañ ndax kat bu tubaab bi la sëriñ bi bëggoon bu ko tubaab bi defoon tey lii du am parce que sëriñ Tuubaa nag bi mu laajee bi mu waxanteeg suñu borom lii fi des loo xam ne mën na koo yóbbu tey fii mu nekk la laaj suñu borom tegal ko lii jafe-jafe yi am mu tegal ko ko mu réussir ko tax tey foo ay toll sañ a wax allahu akbar wala allahumma salli bu njëkk kuy julli boo déggee fas wi kocc kocc nga yaakaar ne tubaab bi la da ngay sëlmal kon buñ mënee julli jaamu yàlla na nga ko sant Serigne Touba ak mag ñi fi nekkoon di taxawal diini dëgg jooju nag moo fi sax ba tey kon képp ku ko indi daañu ànd ak yow parce que ñaar rek am ci àdduna texeeg àdduna ak texeeg alaxira saadatu daareen ak saadatan laa si xaawatan texeeg àdduna nag mooy lii tubaab yi yor parce nag nit dafa war a liggéey yor tuut dundalu njabootam gore ku góor ci dara sax gore dalay jafe nit ku yiw dafa war a yor yor xaalis man cee jaamu yàlla man di lekk di naan am jàmm loolu mooy dëgg ku la wax ab jullit dafa war a alku dalay nax ab jullit dafa war a am kattan liggéey alal ju lew di ko liggéeyale yàlla loolu mooy dëgg su fekkee nag bëgg nañoo egg foofu jullit ñi egg dëkk bi dinañ ko jox ay jullit parce que mën nga ne asadu an la ilaha te fekk au fond déedéet mooy suñu politiciens yi parce que ñii buñ gëmoon yàlla wala dara nekk ci ñoom ci ñun nii ñu yore réew mi lu ñu ko def parce que wala xam karamna bani arama yàlla da fonk doomu arama tay deux cent nangam personnes faatu ci benn coup ngay tëgg ay làmb di kaaj kaajee ka sabar di ñàkk fayda di fabbi nit ñi nit ñi yeewu nan xam nga tey koo xam ne dafa nelaw ba yeewu nga daaj ko kaasub café bu am jaram mu naan ko ne jaram nga fekk ko fa toog naan kaasub jaram nga ne ko da ngay nelawaat billaahi bu gëmmee waxu dëgg nelaw looloo dal Sénégal yi ñun même bu Sonko yemoon fii Sonko réussir na réussir nañ gis nga Sénégal yi tey jii bu fekkoon suñu digganteeg Sonko dafay yem ëllëg ñu dem yàlla dina àtte Sonko duñu yóbbul bor duñ ko yóbbul bor xam nga lu tax Sonko niveau bi mu ñu yeewee même moom bu disparaître woon ñun bu nelawaat te yee bi mu ñu yee rek mu keneen mënatu ñoo nax réew mi keneen mënatu koo yor ci lu dul dëgg kon réussir na parcours su ñëwee nag di président de la république te réew mi ci yoon loolu ceebu jën la rek bu am janax waaye li mu fi def nii mooy ceebu jën bu am jën génne mbot mu yee ji mu yee nit ñi ba ab caaxaankat wala saay-saay mënatu leen a jiital wala mënatu leen par kii Sénégalais yi dañoo yeewu boo taxawee di wax dara dañ lay reetaan téléphone bi jàll mais cell parce que yow mi wax moo la gën a xam li ñuy wax parce que Sonko li tax nit yi démb yi ak saay-saay yi ak ñi gëmut liggéey ak ñi gëm yi tàppale bëggunoo gis Sonko maa ngi dégg benn nit ne tëj gii ñu tëj Sonko Macky moo ci gën a néew intérêt mais aka wax dëgg moo ci gën a néew intérêt parce que réew mi dañ koo tabaxee ci noo xam ne ku jub wala nga jubal wala nga bëgg dara mënoo nàmp ci meewu nan noonu lañ ko installé ku ci bëgg a nàmp da ngay dem di waxi fen di nettali fen di dugg ci loo xam ne nag suñu noonu pour mën a bokk ci daa bi wala ñu mën laa nangul ne la kat yow ci réew mi nga bokk mais liggéeykat waxkatu dëgg nitu caaxaan bëgg réew mu tegu ci yoon doo am jàmm doo ko dégg te duñ la ko wax waaye nag dëgg dafa yàgg tumuraanke ci àdduna waaye nag nit ñi tamit ku gis taxawaay bii ñu am ci ndigalul Ousmane Sonko nga xam ne nit ñi fay nañ ko baax surtout Touba lu noppi di ko wax surtout Touba xam nga Ziguinchor sax mën nga ne fa la dëkk waaye Touba gii nu ñu jàppee Ousmane Sonko moom moom sax xamut ñu ko waa Touba def ñun ñii fi nekk di ko tuddoo ñoo ko xam kenn ku ci nekk ci ñun muy Serigne Assane muy man muy keneen am nga ci cofeel nit ñi cofeel goo xam ne yàgg ñoo ma bokkoon lépp dëkk ci dëkk bi bokku téere bi bokku xasida yi bokku lépp mais cofeel gi yokkaat ñu ñu koy sentir ñun xam nañ loolu mooy lan te du kenn ku dul jëmmi Ousmane Sonko dëgg la yàlla bëgg li may wax ne ku ku ku werante nit ñi dañ dara nga ci bi yow euh, ban jën wi nga taxaw téye ko bàyyi mbos nit ñi liñ bëgg dégg rek nga leen di te liñ bëgg dégg dëgg képp la boo leen waxee dëgg yaa leen moom boo ñëwee di kaaj kaaje di wax leneen ñàkk nga leen fa saasa astanu Touba ñoo ngi nii ànd ak Serigne Assane Mbacké di dugg ci kër yi di parrainer président Ousmane Sonko depuis presque dix jours ñu ngi tëj suñu kër tëj suñuy place tëj suñuy parking ci lii la ñuy nekk ba deux heures defaruñ ko nag Ousmane Sonko Sénégal lañ koy defal fii dimbali nañ fi ku ne nii Ablaye Wade. Idrissa Seck avant muy xaru di naan posan ba mu ñëwee di yaa ahlal bari rek bu mu jooni bari jàppale woon nan ko ngir sëriñ bi waaye nag loolu jeex na xam nga lu tax mënuñoo mànd ci sëñ Tuubaa jublu ci yaru ci benn waaye jóge fële yoroon ak tama ba teg ko bëgg ñoo dugal ci yaa ahlal bari ñoo ko gën a mokkal fuuf ndax yaa ahlal bari yéen yor sëñ Saaliw wala ko jàngal téyal na ko ñu tari su foree ba itam ñëw bëgg ñu cee fa loolu sax du ma ci waxati ñi parce que man xam naa ne nit ñee bu fekkoon taxawaay buy jaay la jar na milliard te adduna bi xam nañ hmm. waaye nag bëgg dëkk bi yàgg ñun ba ñuy politique Ousmane Sonko politique wul mais man lii Ousmane Sonko di def lépp maa ko njëkk a def mais tey damaa xam ne tey discours bii mu mu teg nit ñi gëm nañ ko te li wax ñu koy topp te njariñ esal toujours ma wax ne Ousmane Sonko bu xëyoon tey ne nañ parrainel ma jambal jaañ personnellement du ma insté dama koy parrainel ndax xam naa ne buñ ko parrainel lay bu pund bu wéri ma jambal jaañ yàlla mën na koo tëggaat muy jëmm ju sell loolu laa gëm te nit boo ko gëmee loolu ngay def man mbiru lu lu mu wax du ma ko sikki sàkk xamewu ma ko nag man ci télé Ousmane Sonko na leer dama topp ay jikkoom li ma gën a neex ci moom ku benn nopp loo koy wax ci nit bu ko bu ko gisul ci nit ki du ko jàpp damay gis toujours ñu naan ko diw lii diw lii diw day rey rek ngàdd la fé fémé fémé féeg tegul bëtam du jàpp loolu te asgor noonu la war a mel ndax nit waroo jàpp li nga xam ci nit waroo jàpp li nga dégg ci li nga xam ci nit war na seexul xaddim jikko yi ñu xam ci jaar euh, impôt impôt di dexu xaalis nit ñi dugg fa naan sangu tibb yóbbu seeni kër mu taxaw ne ku ma mas a jox dërëm ñool wax kii ba mos ñaarut de ku ko wax ay la ilaha te nit waxul nam nit waxul nam wax nan jëf la mel boobu ba léegi nit ñëwut dévier toujours ma ne leen man mooy gi ma mooy ci Ousmane Sonko damaa yàgg mooy ci tappalekat man te du ma mu ko wax dañ maa wonoon lu set ma dugg ci biir fekk ay tappalekat lañ waaye nag yàlla damaa dimbali ci sama xolu muñ boobu ma topp dëgg mu dugg biir kër Ousmane Sonko te xam naa ne fekk mi ngi ànd akum xelam barke Seexul Xadim du war Sénégal yi a waragul Kaaba ñu koy topp am na ñu dépasse xam naa ni xew ci dëkk bi am dara lu ñu Ousmane Sonko mën a yow du dara lu nit am suñ borom may nañu ko ci euh, maanaam liggéey yàlla dëgg la bëgg te waxuma rek jóg di wax dëkkuma gisaawoo dëkkuma man Sénégal laa dëkk te xamante na su ngeen gisee ñu bàyyi suñu lépp topp ko yéen a am ci Sénégalais yi te mënuñu ko texeeg àdduna gii gëm naa yàlla ci loxo Ousmane Sonko la koy jaarale saadatu daare ni saadatu laa si xaawatan tey tubaab yi saadatu daare ni lañ am moo tax ñuy dugg gaal yi bay faatu ci yoon yi mooy texeeg àdduna ku bëgg a texe ci àdduna da ngay nungoo liggéey te liggéey jaamu yàlla ku ci ne boo texee ci àdduna ëllëg yomal xiyam am nga mille chance pour texee parce que liggéey jaamu yàlla ku ci ne bu set wecc saadatu daara ni jomb la saadatu laa si xaawatan jomb la looloo tax ñuy xëy man cee dee man cee perte lu ne man ñu cee dal mais loolu la ñu yàlla natoo parce que man bëgguma injustice bëgguma ko Macky Sall yow li li li ne sa kanam sax ñun ñun ñun ñun ñoo la ko gën a comprendre mooy xam nga suñu loxo xam nañ sa loxo waaye li nga bëgg duñ la ci fekk si xam nga tey toujours ñuy wax naan day mer day nangam xam nga tey boo demee Chine wala Dubaï walla Corée yëpp fa sa conteneur bu rafet boo xam ne say bagage yu baax nga jënd def ci ñu tëjal la conteneur bi nga ñëw ba ci port bi nga fay génne tijji conteneur bi gis ci ay mbóot fekk ay bagage yu baax nga saa sewoon looloo ko dal candidat bi mu yaakaaroon ne continuité mën naa am la ko sénégalais yi woon ne ko yow mii kat yaa ñu ko taneel te yow sa jëmm ji kat mbootuñu ko gënal problème am na ñaar geeg buusu géeg bu la dara jaaxal lii képp la dafa yor moo xam ne la sëñ Fall waxoon ci marchandise rek yóbbu ko fañ ko bëggee te nga wax ci lu nit ñi am yow nit ñi bëggul li te ni nga koy jaayee seer na kon nag il faut ñu joxante bi parce que juboo mën ta am lol nag ak it nax buñ ko yag nax mëno dem so démé dëkk bi tak nangam nangam yii nii bam na déconnecté na ci aduna bëpp diko ko déglu far dëkk bi tak ñi ko doon wax lol ñom la tuta gis xam nga saaga na Sénégalais yi ci Covid bi bu ngeen bëggut ta ñàkk ma delloo ko bu leen ma hé lu leen def na ko façon xiixaan bi <laughs> façon xii bu ma reetaan façon façon xiixaan bu nekk def na ko Sénégalais yi jàll comme ñun toroxal nañu façon ñu leen. ñu mel ni aw ku ci wu nag rek ne duñ tàggoo léegi nag mu ne waa këram lay saaga damaa xam yow ku toll ni ki chargé sa communication. nga jàkkaarloo moom naa ko yaa ngi sëgg li ngay wax et eh man mënu koo xam. mais ma bu ma doon nu waa ji tudd xaw ma dara xaw mooy waa ji mel ni mel ni ñu wax rek ki mel ni fi ma peinture foofa na mu ne ko ah bon li ngay wax dégguma ko bu ma doon foofa na ca saasa laay laay laay. ki ngay waxal boo demee ba ki lay wax loo yow déggatul li ngay wax mais yàgg naa wax ñu suufee yàgg naa waxee tappale te ni nga ko doon dégg waaye fi ni nii affaire bi da koo sëbatu dara xam nga dafa am jàng yoo xam ne daa am benn waay bu ñëw di aalu aalalu jës bu bi neex lool waa ji yor onze mille jaawale mille francs yi bëggoon a saraxe mille francs yi far saraxe ñaari junni yi bi ñëwee jox waa ji ñaari junni yi dem toogaat ba jàngee xaw a sedd mu ne lux lux poos bi gis mille yi eh, eh. fekk mille la bëggoon a joxe waaye joxe na ñaari junni daw jël micro bi jàkkaarloog jàngkat bi naan ko il faut nga yëkkati te bañ a wàccee <laughs> boo ko mënul ñu xeex waa ji ne ko bi loolu kay jërul xeex am jàng kay da nga yëkkati te wàcce bu la neexut kay ma delloo la sa mille mu ne ah boo ko defee ma dell toog ñu nekkaat jàmm nga xam ne moom mille francs yi ñaari junni yi mu jox waa ji <laughs> dama mu neex ko jàng yi damay sax ay ginnaaw kër. dinañ sëñ joxal ndax jàmm mën a dëns. waaye mat yi maanaam fi ne tey bu ñu waxoon ba dafi tappale te yàlla du ko def parce que yàlla du nu alal ndax yàlla nee na fu ñëpp boole yaakaar am def fa yaakaar même bu fa dara néewut dinaa fi def dara barki Serigne Touba yaakaar gii Sénégalais am ci Sonko. du tas man xel kom ba ci démb laa fa jógee. ba fa liggéeyee ba pare dama ne sëñ Saliou takkal mako ko ba mu dëgër nga nga sëppal ma ko rek laa ci soxla président Ousmane Sonko 2024 sénégalais yaakaar jii ñu am ci moom ba mu tas dugalal ma ñaan gi foofu bu déwénee bu ma fekkee may dund ma ñëwaat ñaan fi jàmm ak tawfeex bu wér-gu-yaram ndax dama xam ne loolu jàmmi sénégalais yi moo ëpp importance jàmmi kenn nit loolu la ñu xam ba tax ñu siggu ñu taxaw lu ne taxaw ñu won ko ginnaaw pour jàmmi sénégalais yi dafa am ñoo xam dañoo égoïste man jikkoy murit dafa ne ci man jikkoy murit da cee bokk yaatu xéer mën a joxe ñam ins bëggoo ñëpp am jàmm xool yëpp tolloo loolu dafay jikkooy murit murit ngay dugg këram mu teg xamu la mu teg ci kawam lalam yaa sa tànk yu diggiñ loolu loolu ci ñaanu maanaam alali sëñ te man loolu damaa dab man bu may lekk ganaar nit ñi di sonn di lekk ndam bi damay mel ni ay këyit laay lekk mais ku ne xam na ne bu doon suñu jëmu yi di ñaaj sëñ Tuubaa ñu dem toog te dem dugg ci tappale yi nàmp meew mi mais dañoo nàmput ay tappale ñun sunu maam bi muy jógee làmbaay di ñëw ci Serigne Touba booba kenn mësul gis ku bokk ci buur buur yilif barñi ba kàddu bàllu ji bi sëñ Touba laajee soldaar yi sëñ Aliou Diouf Lambaye fanweeri soldaar la ko jox ci jamono jooju Bawol gépp ne ci loxoom nga bàyyi ko dem ci sëñ Touba mu la yalwaan loo ñu ne kii alkona nan ngay doone buur ba pare dem di yalwaan <laughs> naxut sëñ Touba waaye sëñ Touba naxut sëñ Touba toog na ba ne alhamdulilahi saxoon naa kenn la mu sëñ Touba diggoon ba la mu sëñ Touba diggoon fees na ba mel ni jant bool gépp boo fa demee lu mu fa moomul rek dëkku bool eh. kon jaayante na lu ne woon na ginnaaw lu ne ngir sëñ Touba waaye bi ku sëñ Touba fayee xam na ne la mu yoroon lépp sëñ Touba rek ay dëgg lu dëgg kon ñun ca foofu lan soqi ko maa ngi tëj nag di wax rek li muy tëjee waxtu wu nekk mm-hmm. na buur mosal nu boole ci aar te gaaw teggil nu Macky ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ak sëñ Baxaw sëñ Njaay yi ñooy dëkkandoo yi nga xam ne ñoo bokk ne fii Baye Mbaye bi suñu kilifa waaye mag ñu maam waaye lépp lu ñu yëngu Baye Mbaye day ñëw bokk pour muy bu baax kilifa bu baax bu ma a dëkkal la di ko ñaanal mu yàgg fi la ci bu la ñaanee bàyyi ba pare dañ teg ñaan gi yow bii ndax man damaa nekk boo xam ne dama la yàgg a topp taxaw nga sama buntu place di wut pare naa législative yi passé nga ànd ay jeunes nii dama laa xool di daafal kitaab dama ndax ma dama ne kii sër suñ fàllu sër suñ tubaab direct waroon a mën a toog ci saalam buñ climatisé di di laaj ay addee ñu ko koy jox lépp bi dox mu génn loola ngir bëgg a doxal réew di ngay daj tere ñu ay dox ñu ñi ngi gis te ñi ngi fekk ba ci bi lay jàpp maa nga fa ba ci jour bi lay bàyyi ba nga def sa déclaration ma lay seetaan direct nga def suñu soit xarit bii kon xam nga war naa yàgg naa du tey waaye jot boobu yëpp nag man dama lay nga am fan gudd ndax li ma bëgg ci asugor yoo dañ cee ne muy la soo ko seeba jàpp jàpp na waaye boo ko seeba bàyyi bàyyi li ngeen nii réew mi ngeen koy defar ndax ku ku ne xam na ni ma suñu sonn waxe waxe léegi réew mi ku ne xam ne sonn na man mii tey laa xëy yëkkal suñu gerte ñor na suñu mbay mi ñor na mais gisuñu ku ko jënd ñu xëy xëy ni ñu déclaré ay chiffres naan léegi quatre gerte gi deux cent quatre vingt lañ koy jëndee te gisuñu benn point de collecte bu taxaw boo xam ne état moo ni may jënd bii ba pare nag yabal ay ma ci marché luuma yi bëgg nag euh, baana baan yi jëm si gerte gi ñu def li état wax waaye ki nga joxul xaalis marché bi ouvert ubbi na nga bëgg ni ba léegi man li ma wax moom ngay def te yow wane woo dara lu wane ni yow li nga wax ni yaa ngi koy def mais yaa ngi ñu lor bi topp mooy ndox dafa manqué forage yëpp a baax xaw ma lu xew mais ñun ndox ba ndëkkee ñetti forage lañ fi wër yëpp a nit ñaa ngi bëgg a dee ko te loolu am na Touba gi kon nag li laa reçu yi nga xam ne seen kàddu mën naa jot ci président Ousmane Sonko saa bu ngeen toogee moom bu leen ko def ñii wax affaire def di joxe ay guerre de chiffres te wér na li wax amul nañ ko wax li askan wi dund wax yow biir nga askan wi tout le temps yaa ngi seen biir Touba rek. yow rek man ngeen a layal ndax man bis bu ma la gis si mbedd yi maa ngi gis li li ko tuba tubaab dund ko dund ak ñoom kon loolu bis bu yàlla dogalee ci ci si président Ousmane Sonko toog loolee nga dan tek sa tank diko wax bu nguur tax mu nga dégg ko loolu bokk nit li nga xam ni dañ la koy ñaan bu di tuub na kàddu ndax ya fi mu togo no bi ci ko fu waruñu won def waye nak jamono ko laaj rek ñu ko koy tuub di sant ci soo di lambay gay nek mais nag moo tax kenn ku bokk affaire nëbatu la génn wax. ana ana ana waa affaire est-ce que bi ngeen di pare nii gis ngeen kenn terrain ana ana ñu pour ne ba pare ba nga xëy xëy génn am na 3 millions 532 cas tey tey tey ci moom moom laa dégg waaw léegi ku ñuy nax kuy pare lii ngay def da génn dem ci nit ñi mmh. ñu pare nga kaar bi des mooy suñu parrainage bii ko denc roog seet li ci topp mooy dama leen wax leen ko laaj xam parrainé naa ma pare ndax foofu fi la état bi naan ay doublon bala ngeen a jël quarante kenn ñu ko ndax parrainé na wax ñu dëgg bu ne waaw parrainé naa ngeen ngeen mën ko jël ndax waaj yi xeex da koo jaral lu ne hmm. day xeex bu dugg jël ndox waaye ku xeex bu dugg jël ndox nag kër daal ci aay li nga ko daa mooy fexe lu muy def la lu muy def lu gën a leer ndax kii caaxaan jëlee ko fi de bi muy doog a fal ba am ñetti fan benn mbokkam daf maa fekk fee ci sama place man xam nga tëgg laa maa ngi ñoom ay kàllañ mu yendoo man ma jox ko ataaya ba ba muy dem ni ma da ngeen am président bu bees man waaw mun naa ah, ba la ngeen tàggoo moom da ngeen jooy billaahi wal kitaab ma ne ko lu tax mu ne ma ñun askan bi ñu jiitu dañoo bëgg nguur te dañoo bëgg ku ñu jiitu ku ne dañ lay tegi tànk surtout bëggee tegi tànk bi mu dagg sa mbokk nii la ko waxee te la moo xool moo koy topp moo koy topp douze ans virgule de nuit te kooku mbokkam mu nga dëkk ci côté bi yooyu mu dëkk mbokkam billaahi wal daal mais xool coono yi bi rek man waxuma xale yi dem ci géej bi waxuma euh, jeunes yi marchands ambulants yi ni ñuy def mais xoolal suñu mbokki baykat yi man ci àll bi laa ne tey laa fa jógee xoolal li ñu def benn ku leen dimbali ci lenn du engrais du jiwu bu baax dara xam na bu ñu demee ba bu joxe jiw naam bopp ne ay trois kilos trois kilos kemb lu mu jariñ lu lu moom lu bay la fekk ko ci fekk ko ci xiif métti ay saaxam jeex da koy lekk te na koo jaay de mooy ñun ci graphique bi yéen na bu yàgg jaay boo mu doo boo jaay boo jëndul doo am soo fooy tam ko doo am te yëpp nag wax ngeen ci def jàngat dimbalin ci boobu yàlla dogalee ñu ngi ci bopp réew mi loolu nit ñuy jooy ngeen def ko téere saa bu mu xëyee ubbi benn paas jàng loolu fekk man dal wala bëgg ñu def man nag suba ngon ba ci lepp ma ci ngi si may nit dess ñu des suñu asan damaa ndaw man mënu maa politique ndax ma taxo dama maa politique su ma jàpp dama bàyyi xam nga nee naa leen ba ma leen dalee topp yàgg na suñu sol bi mii vidéo bu mu def seetaan yow pare non c'est comme la terre sec c'est activité lépp benn boo ci raw depuis 2019 mille dix neuf ak léegi benn boo raw waaye dama mënu nekk terrain bi yëngu di ak di wax ni mais xamna fi lu bax ne fa lay fa lay orienté sama bopp jëm te gis naa yi seen président Ousmane Sonko li ñu ko yàlla indilee moom moment la ñu ko indilee waaye nag li muy yor ku ko ma fa yor ku ne bala ngaa jot te na nit ñi soxla soo moytuwul ñu dagg sa bopp Cheikh Anta ak Mamadou Dia dëgg gi la ñoroon ñu cor seen loxo mu cor ko nag yàlla bu mu am président Ousmane Sonko dëgg gi mu yor yàlla ko yóbbu ba naa Sénégalais yi bëgg mu àgg fa mu romb ndax day day as ndax li muy daj bu doon tey jëmm bi ma tax wala njabootam ba tey bàyyi na ndax leer na ma ne laa laata ñu ñu koy ñu koy def li ñu ko def feet nañ ko guddee ki malet mu lànk xëpp nañ ko mu taxaw xëpp nañ ko mu taxaw taxaw rek di dëgg laa man benn baat rek tax ma topp billaay wal kitaab bi keroog ba ko Macky Sall rajee mu taxaw ni man def naa impôt quinze ans képp ku ma jox fukki dërëm yoo xam ni corrompu la génnal nga wax ko ma dawal ab diir di ko xool ba yàgg suñu kilifa gi seen tubaab teg Dakar muy màkk yu fay génn def seede ci moom man ma ne man ci mën a wër a yi nii man waat laa woon cent pour cent ñun yëpp sax ñu bari mais man ba waat demee léegi mënu mënutuma gis ku ma saf ma gisoon ko ñëwee nag la ma la ma la ma yàlla dogal mu saf ma bi ma koy campagnal ci ci député yi passé yàlla xam na ni même man seul maay ànd di dem dëkk dëkk sama jeune yi ma mën a waxal ma dina indi proche Ousmane Sonko ba yàlla dogal na léegi laa wax man la bi ñuy bureau bi nga xam ne fa lañ matee ñun rawee nañ fa waa benn Bokk Yaakaar cinquante sept quatre te mosu am mosul am ba yàlla dogal tey xale ma daan convaincre nag nag gëm nañ ko ba nee na ma foo jëm fa lañ ba tey jii yàlla dogal na bu ñu demee ci Fatick présidentielle yi comme maa ngi si numéro suñu fanaan jox numéro bëgg naa ñu jokkoo ko foofu ma xeex fa may dañ fay ñëw sax am boobu la bëgg naa ngeen jàppale ma ci bu ñëw gi mënul nekkee ngeen appuyé ma dañuy ñëw sax loolu daal man loolu laay wax moom di sant ñëpp na di gërëm ñëpp di yaay jee soxna kodd moo sama yaay ñëw bokk bàyyi waaw mu nekk ñu bokk ci koñ bi di ko ñaanal bu baax moom it ndax moom it dañoo bokk engagement moom bu jàppee du bàyyi ngeen ñaanal bu baax it yàlla suñu borom may soxna si yooyu marché moom laa liyoon waaw jàmbaar la waaw Adama Diop laa liyoon yàgg naa ko dégg te la yàlla dogal ñetti jëm yii ma gis leen tey ji toog di jaxal dama leen yàgg toog kon nag jërë ngeen jëf rek di jégalu kàddu yi bu baax nag ñuy xaar waaw dafa am ñu a maanaam maanaam pare nañ ko moom moo tax. incha allah xam man naa bëggoon naa kàddu yu ndax wax naa am na sax wax soxna si ndax ñëpp dafa nekk chargé bi mm-hmm. mm, am na xam ne am na ñu ko léegi ñu ko wax ñu ko ñu ko xaw a ko lu mm-hmm. bari coow yu bari dama koy déglu lépp mm-hmm. sax mënuñu ma gis ni euh, waxtaan ak njiit yi ak mm. mm. mm. yu muy ak gis amna na war amna charge ñu war do war li tax ñoom charge n'a danoo nangoo féete te ñeñal li ñuy féete tan tànn ko fi kilifa yu bari ñu tok sen kilifa yeneen yi ñu sen population yi jël deux décision xeex ndax li ñu ñu dugg kilifa di Macky Sall li ñu ama li ñu andi problème ak moom dafa tuutal kilifa dafa nangu kilifa yëpp ñëpp a yam loolu moo ñu jotale ak moom ba tey loolu kenn du ko laal HLM la ñëw HLM 1 di seet Sëñ Sidi Moxtaar wàcc oto bi mbooloo mi ni ko wuu mu joxaat ñu yuux mu dugg ci biir sëñ bi jóg jël parole na bu leen ko defati kii sama gan <coughs> mbooloo mi yëpp noppi waaye boobu lañ war na xam ne am na lu xew lu war a taal taalibe yi ñun lan moo war a yóoxu gi ndax du ñu def yokk Sall ñoom ñu yeroon doo mënuñu def dara mais lan problème mooy dafa wax kilifa yi lu ñu neexu loolu nag ko ba moo jur ñu bokk liggéey bi parrainage gis nañ ci yow gis nañ ci lekk c'est pas la première fois nga am problème Touba toog nañu sa kër ñu waxtaan am problème ñu bàyyi la ko jéem nga nekk liggéey yàlla def mu amaat seneen ni naataangoo seneen ni ndaw seneen ni moroom yu yàlla teg tubaab ñun bokkul liggéey liggéey boobu dañuy war a xam ne yàlla moo leen moo leen nattu teg leen tubaab mu nekk na première ville du Sénégal léegi nekk première ville capitale du ville du Sénégal du caaxaan. ab chargé la. du benn kàngam moo ko yor du ñaari kàng ay nit yu bëri xam-xam. yu am fit ñeme ñoo ko yor 53 milliards lañ ko jox par 60 milliards lañ ko jox nous ñu ko jox 4 milliards C'est est de foutaise loolu dañuy yàpp moo tax ñu ko def te à année bu nekk contribuer ci budget bi en 2007 Moubarak Lo l'a dégg mu wax ko man du ma wax du man du ma lu ma la wax ñeme naa ko. Mm-hmm. ñeme naa ko wax fépp Moubarak Lo moo ne Magal bi dana dégénéré dina 250 milliards par an. waaw amul benn pays benn région fii buy contribuer au niveau de l'État 250 milliards ñu ngi jox 4 milliards. dañ ñuy yab dañ ñuy fontoo dañ ñuy yab ñun waa Touba personnellement dañ ñuy moo tax ñu jox 4 milliards dafay dañ ba si ko tey loolu élection yii lay dañ dañ jël jox suñu gëdd jox ñu lu ñu mérité far force na laa ñu ko kenn fu obligation la. macha allah moo tax ma bëgg ñu bari ñu wax yu bari suñu Cheikh Thioro sa frère ci bépp domaine Mbacké Sénégal Touba ak Bawol maa ngi waxtaan ndax ñu bari ñu ngi seede la loolu loolu bu ma amul woon nii tey mën naa jàpp loolu tey ci biir jumaa yi kër bu soo ko ñëw ñoo ànd ma ne si asan ñoo ma ne war na waxtaan war na defaraat taxawaay kër ba génnee jaar dara salaam la tey ci biir jumaa ñoo ànd ci jaaree kaam yi fii jàng kaam yi pongo toog mu bëgg nga xam ne charge bi diis na ji moom waxuñu ko Macky Sall affaire passé bi tourné nañ ko Macky Sall jërëtu la wax moom moo tax ne bokkutu te ñii fi nekk du songu dee di barke Xaadimu Mustafaa soo ko bu ay woowu ñëpp ne Assane Seydou Assane nekk nga nekk président tey. yal na yàlla mottali lépp. te xel na dal. ñu continuer liggéey Macky Sall passé na pare tuñ ci wane na ci loolu. l'élection yi ñëw ñëw rek ñu dem ci gagné ko mu jeex tëggaat benn Sénégal bi su problème bi social bi tubaab yi la. gañaat gañaat benn sukoor dañ ko def sonn nañu. ñetti téeméer ak esclavage jiiri na ko perte nañu Sénégal perte na 17 millions de de perte 17 millions de Sénégal. tubaab bi sonn nañu bés ni ki tey lu jël suñu responsable di leen defal lépp tey ci usine di ko defaraat te nag ko waxtaan ak parce que ñu sànni ci kàddu rek ci li nga wax léegi ci war nañu waxtaan chaque jour ñu ngi waxtaan certes amuñu benn problème incha allah amuñu réeroo ma sa wax jox ma wax ju ñaaw ma dégg moom man tamit noonu kon maanaam moom amuñu problème xëy na nag am na ñoo xamante ne ñooy ci bëgg a def nii waaye man ak moom parce que euh, toog naa mu toog way juróom toog way juróom ne ko politique ba da ngay yàq seen diggante moom yow sax coono nga te ba ba léegi sama papa lañ ko tuddee kon sama diggante moom ku ci wax da xamul rek waaye amuñu benn règlement de compte wala lenn lu may xëccoo maam am moom keroog bi yàlla defee. ma njëkk a togg maa Ousmane Sonko ci biir Saalum bi mu ne ma noo bëgg a duggee ci parti bi yan condition nga teg ma ne ko du ma la teg benn condition parce que man dama àndal nit ngir condition wala ngir ay poste wala dara man gëm-gëm ak condition lay àndi nit te gëm-gëm boobu ba tey loolu moom moom mu nekk ci man tey ni ko sëñ Moussa di fa tey bu ñoon jaay man na na jaar ay milliards ñu suñ diggante ak suñu gëm-gëm ak suñu conviction moo ñu gënal lu ñu mën a am ma ne ko euh, am nga coordonnateur Touba muy Cheikh Thioro te mi ngi lay jàppale mi ngi def liggéey bu am solo te 2016 ba tey mi ngi ci parti bi kon man li may def rek ñëw ànd ak moom ñu ànd liggéey te loolu laa gëm keneen ku indi leneen nag yow yaa indi loolu waaye man loolu sama gëm gëmu bopp la mm-hmm. ma ko kon kooku dañ ko war a dooleel jàppale ko ànd ak moom daal di liggéey mm-hmm. mu ne ma yow sël yaa ma sa toog sama saal bii wax ma ne ma soxlawoo coordonnateur soxlawoo poste soxlawoo dara lu dul ànd ak man ñu ànd liggéey te yàlla tax ndax réew ma sa toog fii da koy si tël di toog nañ fii ne ma def ma coordonnateur Touba ma ñëw jàpp la même sëñ moo ma sa toog sama saal bii musuma demandé benn poste te loolu moom moo te bi ko Ousmane Sonko laajee Darou Moussi ne ko dugub ko sëñ Assane ci parti bi noo ko gisee Cheikh Thioro ne ko am sëñ Assane ci département bi mu gën foofu ñàkk ko waaye lépp loo mën a def ba mu ñëw ci parti bi nañ ko def kon xëy na nag ñi xamul nag ñooy wër di wax wala ñuy wër di def wala ñuy kii di waaye ñun loolu déstabilisé wuñu parce que ñun yàgg nañ ci politique yàgg nañu dégg lu ne kon kuy xaar loolu sama diggante ak moom mu jóge ci man bay boo sab xaar dina yàgg moom incha allah nañ nañu projet te yàgg nañ koo def ay frères lañ ñoo bokk parti ñoo bokk luñ bëgg te fii ñu toll loolu sax dafay amul place kon nag képp kuy wax di diaboliser que di yàq di wax ay wax kooku parti bi ñëru ko projet Ousmane Sonko tamit ñëru parce que ñu toll maanaam soxlu loolu li ñu soxla rek mooy ñu ànd liggéey bi di wut di dugg ci kër biiru li des ci parrainage dina ko defal boppam ne liggéey assemblée mu fi nekkal kon ñoom seen da gore rek Mbacke macha allah merci beaucoup merci laa ma ne ko wax góor dëgg nga fi wax macha allah dëgg la macha allah macha allah waa live bi sa kontaan nañ dëgg la yàgg rek lay ñaanal baax. dëgg la. ndax ñu fi. dëgg la papa dem. ñaanal ñu ñu yeweeku. dëgg la.